ci benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi daanaka wenn sànni doon dong lay doon wenn ratalu rek lay doon tam moo di tawat ji nga xame ne moom la ñu duppee coronavirus waaye tey jii ci ajjuma ji amul julli yu juma daanaka boo seetloo ci ndakaaru gi wërngël kàpp ak li am na sax ci yeneen gox goxaat yi gannaaw ba nga xamee ne euh, tey jii am na dogal boo xam ne bi rot na ci ba julli jumaa yi loolee du mën a nekk loo xam ne lu jàppandal lay doon daañ ci dikk ci biir xabaar yi Euh, dafa am itam ay lenn du ñàkk itam benn ab coppeeku boo xam ne dana ci am itam ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci woote woote goo xam ne gi ak nodd lay doon googu dafa jëm ci wàllu jullit jumaa itam daanaka loola tam wareef na ko mën a xam itam ni nga xam ne noonu la ko kii di Amadou Kanté waxee di jiite ci euh, jenn ci jumaa fi ñu toll ni fii ci biir Ndakaaru daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi daanaka itam julli juma du am itam ci daanaka ci wala bokk ci ngeen baal ma ci jàngu bi euh, ci li nga xam ne moom la ñu duppee ci seen ay njàngu bi wala église maanaam semaine de croix bi nga xam ne moom la war a amal loolu tam daanaka dàqani nañ ko ba jëmmi jamono ndar ñaar fukki nit ak ñett yi nga xam ne ay Sénégal lañ ah, ci nekkoon fële ca digg wala ca Mauritanie loolu ñu ngi leen fay xaar daan ci jokkoo léegi ak Yves Tendeng lépp benn tomb doon boobu dañ koo jagleel tawat ji nga xam ne moo di lëmbay àddina bi yëpp wërngal kàpp mu di covid 19 nodduga buñ ca fàttalikoo la sang bi waxoon da tey jii day des leen ci seeni kër wala boog jullee leen ci seen i kër loolu dey daanaka am na noddukat boo xam ne bi ci jamono waxoon na ko ndax booba dafa amoon sabab yoo xam ne moo ko waraloon Babacar Samb allahu akbar allahu akbar wooteek bilal bile nar wuuteek lool yi ñu daan dégg yow yowmal jumaat naruta am ci jumaa yu bari ndax ndaje ya ñu daal di bañ feebaru coronavirus waral li ni mel. ñu fekk leen ci wetu juma ju Sacré Cœur 3 seen xar kanam naxar daal di si fës lool waaye yile fidèle ànd nañu ci bile dogal. sentiment bu ñu neex toog tey doo julli doo euh, rassemblement di julli ngëneel yi ci ne. ne à l'impossible nul n'est tenu donc feebar bi du c'est une réalité. yaakaar naa ne loolu yonent bee ñu ko njëkkaloon jàngal parce que balaa moom bu wàccee ci dëkk euh, te gànt yi tax euh, nit. war a mën a bañ a dem juma euh, feebar moo ci jiitu parce que aar sa bopp parce que boo amul wér doo mën a jaamu yàlla kon nag loolu man ànd naa ci waa ji moom ci Sacré Cœur 3 lay yeewoo li mu xamle moo di bile dogal naqariwu ko benn yoon ndaxte li ñu war a def moo di fagaru. waaw parce que ñi koy ñi ko ñi ko jël aussi jël bi suñu wér yaram la ñu la bëgg sàmmal donc ku nekk dèjà yaa ngi koy sàmm pour yow euh, mbooloo moom fu mu am te maladie war fa mën a euh, génne buñ ko mënee éviter daal moo gën waaw du caa génnul nag ajjuma la war na nañu dem et cetera donc. Euh, éviter daal rassemblement moom buñ ko ak fu mu mënti amee moo gën mu ci jàkka ji mu ci marché yi muy feneen ak feneen. daanaka seen fa kàddu benn la lépp li war ngir daal di xeex bi la feebaru coronavirus war nañu ko mën a def. gën a fagaruwaat rek. fàttali jàkka yi dañu ko xalate ci lu ko dalee niki aljuma ji ñaar fukki fan ci weeru mars ci Sénégal gi yëpp li ni mel ba jëmmi jamono. fas yéene dëppoox dogal gi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall daal di nekk koy sàkku ñu daal di éviter bépp manifestation wala rassemblement ngir mucc ci épidémie coronavirus gile euh, ngir mucc ci tawat joojule coppeeku sax war na am benn ci wàllu wooteeg gi nga xam ne moo jëm ci wàllu nodd gi woote gi ñuy wootee jëmale ko ci wàllu julli ndax loolu kat du lu bees moom lu fi amoon itam ni ko Ahmadou Kanté waxee di eh, jiite ci jumaa ji nekk ca point e, jox ko ak Ndeye Mariam Ndiaye. xam nga julli ma day am nodd bu njëkk nga xam ni mooy wane ni eh, waxtu juma eh, dugg na bu imaam ñëwee nag ba toog ci minbar bi ñu doog a def ñaareel nodd bi mu jóg xutba bu paree ñu julli kon léegi nodd bu njëkk bi day am soppeeku te soppeeku bu teguwul ci bànneexu bakkan teguwul ci benn xelu doomu aadama waaye mu ngi tegu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngale ñu war ko defee noonu duñ ci yokk duñ ci wàññi duñ ci soppi dara mooy yan bi salaa salaam bi nga xamee ni taw bu foor am na euh, mu ne noddkat bi boo eggee ba ci xay yàlla salaa xay yàlla salaa ñëw leen julli si ñëw leen julli si na nga soppi nga wax sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum julli leen ci seeni néeg julli leen ci seeni kër te loolu mooy bu mu nekkee ci taax yi ci dëkk bi waaye ba nga xam ne dafa nekk ak saxaaba yi ci euh, kaw ci àll ba dafa wax euh, noddkat bi wax leen sallu fi rixaalikum sallu fi rixaalikum na ngeen jullee fa ngeen nekk seen tànt yi ak fa ngeen nekk noonu ku nekk na jullee foofu kon loolu lu tegu ci lu leer kon léegi tey jii euh, ajjuma ak yeneen waxtu juróomi julli yi euh, fajar ba ba ba bëggee dañu war a nodd pour seedeel yàlla ne ñun bëgg nañ def li ñu sant mooy julli mbooloo waaye nag ngànt moo tax defuñ ko moo tax ñu soppi nodd bi mais dañu war a seedeel nodd bi maintenir ko ci jàkk yi nodd bi ñu téye ko ci jàkk yi waaye nag soppi ko am na daal fi ñu toll gannaaw am na lu xew euh, kër wala julli leen ci màkkaan mi nga xam ne euh, fa ngeen nekk fudul dajaloo euh, ci yi nga xam ne moo di jàkka yi julli jàkka yi du am ci euh, wala bokk julli yi nga xam ne du am ci jàkka yi loolu moom moom moom moom aaye nañ ko ndax tawat ji du am itam ci jàngu bi Josette Kali bésu ajuma ci temps de carême ci église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus riiru picc yi moom lañ fay dégg soo duggee ci biir paroisse bi bunt bu ndaw bi moom la ñu ubbi ngir nga mën a dugg ci biir église bi foofee lépp tekk la def banc yi kenn nekku fa hôtel bi pupitre yi ak tabernacle bi ñu muur ko ba mu baax ñu yore ay chapelet ci seen loxo Clotilde ak Marie-Hélène ñëwoon ngir recueilliru tristesse mooy kàddu gi ñu jibal ci lu ñuy fekkee lu ni mel. métti na torop mais comme que noonu la demee kenn mënu ci dara bu ñu sañoon du demee nii. métti na torop mosuñu ko gis ko dund que jour sans messe musuma ko sax xalaat chaque matin dina ñëw li causé na ma problème trop lu sorewul boobee paroisse famille Pereira ñoom jël nañu matuwaay yi yëpp ngir fu mu ne nii di amal chemin de croix yi ak yeneen ci ay ñaan ci dibéer gi Marie Hélène Seck man suma kër déjà amoon naa hôtel moo xam ne fa lay def prière donc foofu rek lañu nar a toog jublu fa di def chemin de croix yi parce que ñun yónnee nañu ci réseaux sociaux yi quatorze stations yi yëpp donc moom la ñuy suivre rek ñu def am changement mais grawul parce que boo gëmee rek gëm nga waaye ci benn kaddu yile fidèle ñoom ñu ngi xalaat daanaka messe pascale yi nga xamante ni ren gi duñ ko mën a célébrer. mosul am c'est un choc dinañu manqué trop mais gëm yàlla rek parce que li xew si àddina bi dafa naa ne nga toog sa kër comme ni ñu ko santaane moo gën. pour moom au moins messe waroon naa mën a am pour ni pascale bi. de sa résurrection nous devons au aller à l'église et fêter ça tous ensemble. ca paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus bu nekkee ca Grand Dakar foofee dogal bi évêque yi jël ngir tëj jàngu andi wasaarewum feebar bi di coronavirus mat na fa. Sénégal ak ñett yi nga xamee ne dañoo nekkoon fële euh, bloqué woon sakku woon fële ca boori Mauritanie ñu ngi leen di xaar nag gannaaw ba l'escorté tey ci bis bi fële ca euh, boori euh, Ndar wax nañu nag ñu yegg nag fële ca Rosso tamit waaye bu ñëwee fi saa si dañ leen daal di ber mettre en quarantaine ber leen fële. Yves ñi nga xam ne nii ñooy ñaar fukki sénégalais ak ñett ñii ñu bloqué woon fële ca réew Mauritanie daanaka daañu agsi tey jii fii ci Ndar ñoom ñi lee daanaka ca Rosso la ñu nar a jaar fi nga xam ne nii benn délégation bu waa région médical bu Ndar ñoo ngi leen di fay xaar ànd ceeg préfet bu département bu Dagana muy équipe bi leen nar a rawale fii ci Ndar fi nga xam ne nii fa la leen nara a en quarantaine ni ko jëwriñ ñu dënk wàllum santé ak action sociale daal di xamle. loolu le ngir gën a am lu leer ci seeni wàllub wér-gu-yaram ginnaaw bi nga xamee ni ñoom dañoo bàyyeeku ci ay réew tugal fi nga xamee ni coronavirus daanaka lëmbee na fa bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñuy source daanaka am na ay bërëb yi ñu tànn fii ci ndar ngir dalal leen fa seene leen fa mettre en quarantaine te daañu fa jël ay matuwaay yu mat sëkk ngir respecter li nga xam ne ni mooy distance ci diggante ñaari nit te mu toll ci benn mètre jàpp benn mètre ak genn wàll foofu foofule ñi nga xam ne ni ñooy ñaar fukki sénégalais yi ak ñett daañu leen fa mettre en quarantaine ngir gën a càmbar ci wàllum seen wér-gu-yaram bu ko defee fii ak fan yi di ñëw bu fekkente ne ñoom daanaka seen wér-gu-yaram mucc na ayib ñoom ñi le daañu leen bàyyi ku ci nekk delluwaat ci sa njaboot ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tandeng Sud FM euh, ca Mbuur am na ndaje mun fay amal duppee ko ndaje moo xam ne ñoo de crise lay doon ndax daal jàmpal yi fii ca Mbuur boole itam seen kattan ngir mën a fexe rek daal ba nu ñuy mën a xeexee wopp jule gannaaw ba nga xamee ne am na fa ñaar ñoo xam ne ne ni wopp joojule am nañ doomu jàngoro bi Babacar Sow réunion de crise bu ñu amal ngir faagagal coronavirus ci département bu Mbour bi nga xamee ni bërëbu fajukaay bi nemmeeku nañ fi ñaari cas positif donte sax am na ñeneen ñoo xam ni yabal nañ leen Dakar ñu seet ndax am nañu feebar bi waaw wala déet Mbour bërëb bu nga xamee ni am fa feebar bi bu jafe lool ndaxte bërëbu nappukaay yi suñu nemmeekoo ne Chine bi nga xamee ni coronavirus def na fa njombee foofee feebar baa ngi bàyyikoo foo xam ne fii dañ fa doon jaay mboole seen xeetu li ñuy jëfandikoo yu bàyyikoo ci géej gi Fatma Fall jëwriñ ji nekk ci bopp district sanitaire bu Mbour la ciy déglu nañoo mën a jot jël suñuy mutuwaay ñu nit au niveau et des hôpitaux jël nañu suñuy mutuwaay xeex la boo xam ne bi dafa war a gaaw et ñëpp ñoo ci war a bokk xàmmeewul ka am xàmmeewul ka ñàkk xàmmeewul mag xàmmeewul ndaw ñi jógee bitim réew ñu mën leen a neemaku quai bi dinañ ci waxtaan ak préfet ñu xool lan la ñu yoon may pour ñu mën a fexe ba corona bi génn fi ndax bu ñu gisee fu mel ni Chine feebar ba fa mu tàmbalee kaa ba njëkk ma nga tàmbalee si marché boo xam ne dañ fa doon jaay ay loo xam ne de crise boobee di dellu soit lenn ci li nga xamee ni taxaw nañ ko ci li ñu aaye ci wàllub ndaje waaye itam jumtuwaay yi ñu ci taxawal ànd ceeg waaye takk der yi ngir aaye li ni mel mortalatin préfet bu département de Mbour ndaje bi mooy comme dañ nekk ci jamono joo xamante ni dafa am feebar bu fi dugg gën a xam lan lañ war a def pour moytu ko yan matuwaay la ñu war a jël pour que ñii ñëw ci ñooñu gën a renforcer application wu arrêté bi nga xamante ni buy tere bépp ndaje julli àjjuma yi dinañ def lu tuuba bañ ko def ecole bi tëj nañ ko waaye xale yi dañuy dem ci ci géej gi ci lim bu takku pour xeex loolu police ak gendarmerie ku ci nekk ci sa wàll di nga renforcer patrouille yi pour que loolu ñu gën ko mën a xeex. Babacar soo dañ ca jokk ki yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci boori Tambacounda fi ñu toll nii que jiite conseil départemental boobu la ca Tamba ak kilifa yi nga xam ne ñoo yore waa kër docteur foofe ñi ngay wër ci gox yi nga xam ne. moo di digg yi maanaam ci frontières yi ngir séddale ay jumtukaay yoo xam ni dana tax ñu mën a aaru ci tawat ji Boubacar Tamba Boubacar Tamba kon daañ ci dikkat léegi fële ca Tambacounda ñi nga xam ne tam ñu ànd ak waa kër docteur ak président conseil départemental bi nekk foofu foofule rek di wër itam ñaari fan yàllaa ngi nii ci gox yi nga xam ne ñoo gétti Tambacounda di joxe ay mbir yoo xam ni day tax rek tawat gi askan wi mën caa daal di a aaru Boubacar Tamba. président conseil départemental bu Tambacounda mu àndoon ceek kilifa ya fi ngànk wàllu weex gu yaram sol nañu seen i dàll wàcc ci tund ya sax dig ak réewum Gambie maye fa ay thermoflash ak i ay jumtuwaay ci wàllu cet Lamine Touré di ab responsable politique ma dënk Bantantinti di ko rafetlu. ah ni ma ko gisee vraiment c'est c'est c'est très très responsable. parce que mu mënuñu euh, dugg ci kër gu nekk mais buñ buñ demee. si dëkk bu nekk sensibiliser leen wool leen ne feebar bi nii nii lañ koy jàppee nii mandarga bi nii la nii leen ne defe na dana wàññi dana wàññi risque yu bëri bëri bëri bëri maa ngi leen sant di leen gërëm si action boobu. Euh, maa ngi ko doon xalaat bu yàgg yàgg yàgg yàgg parce que sous préfet bi defe naa am semaine passée laa ko doon woo euh, vraiment mu mu sant ma gërëm ma mu ne ma effectivement dana wax autorité yi pour que. ñu def tout pour que zone boobu yëpp gars yi dem sensi sensibiliser leen man sama xalaat la plus grande protection la meilleure protection c'est que nit ñi informer xale yi informer mag yi ne leen bu ñu jëlee le simple geste jël saabu chaque fois jël del ko di ko di ko raxas seen loxo rek defe naa loolu moo gën sax li ko jiitu moom président conseil départemental bi ak ñamu àndal may nañu ay dund ak ay jumtuwaay ci daara yi fi ne ngir taalibe yi bañ a tee tambambaaloo ci mbedd yi li ni mel def nañu ko ci kasob Tambacounda kër jëriñ bi di ëdd kër ak sax jinkoore di ab barab bu ñuy fajee ña amee feebaru xel moom président conseil départemental bu Tambacounda fas yéene wéyal ay yëngu-yëngoom dugg ci kër bu ne ci quartier ba mu dëkk ngir ñaax askan yi ñu gën a góorgóorlu ci xeex bi ñuy xeex jàngoro yi coronavirus Boubacar tàmbaloon tey dëkku fii ci Tambacounda rajo Sud FM gox-goxaat yu bëree bëri dafa tàmbali seenub liggéey daal di di xaw a yeex lool doxin wi xaw a ko mën a gam-gam lekk gam nga daal doxinu kàkkatar Covid 19 bee fa jaar moo tax taximaan yi fi ni toll nii loolu yëg nañ ko. Aïssatou Gueye Ba eh, fii ci Sénégal comme dëkku yu bëri wopp boobee di Covid 19 daal na rek laal secteur yu bëri secteur informel ak li ci mel ni secteur privé nag nekk ay nga bëri bu liggéeykaay yoo xamante ne rek commencé na sooxee ndax lawum feebar boobu boobulee ñu ngi fii ci Sacré-Cœur te sek fekk ay taximaan ñoom nag duñu xamal ne daanaka suba ba léegi ñu ngi ci xaarum client bi moom dafa laal ñëpp comme ni nga waxee rek surtout ñi gis nga ñun taxi la yor ñu ngi ni depuis sept ba léegi nii gaare fa daan fekk ma toog ma am tuuti weccet toog fu dëgër sama xel day dal heure bi mais instant yi maa ngi nii suba ba léegi yabaguma benn ñaari client laa fi yëpp dëkk bi amul amul dara dafa dafa toll ci crise taxi yi nga gis ñëpp amul kenn ku yeb. secteur privé bokk tamit ci secteur yi nga xamante ne wopp boobee di coronavirus laal na ko ci di liggéey tamit ci bërëbu liggéeykaay yooyee di ñu nu ñu bañ a am ab xëy. donc on est obligé ñun secteur privé ñu ñu liggéey nekk ci même rythme que nekkoon avant bel et bien que la maladie existe. waaw bien sûr dëkk bi moom ñëpp xam na ne dafa ralenti tali bi sax soo ciy daw ñun ñu yor oto chaque jour gis nañ ne sax. tali bi dafa commencé fu kii di ab ngóor bu ñu dajal moom mu ñu xamal ne sooxe boobu mënul ñàkk ci ab dëkk boo xamante ne wopp bu bon boobee di coronavirus daf ko laal. waaye xam naa ni aussi chômage bii ñu arrêté nit ñi liggéey am na benn côté boo xam ne baax na am na benn côté boo xam ne dana am ñu ko yëg. nit ñi daal arrangé wul ñëpp mais daal xaw na cee baax am na ñu ko def am na ñu ko deful mais xaw na cee baax quand même xam nga dajaloo bi aussi comme dañ dajaloo bi da koy mën a wàllaate nit te xam nga doo xam foo toll. Sénégal nag nekk dëkk bu njëkk ci Afrique de l'Ouest bu wopp boobee di Covid 19 gën a laal fu ñu toll nii lool nag indi ab yéexital ci bërëbu liggéeyukaay yu bari te bu moyul sax dina gën a rek naax saayal lii di économie bu Sénégal. Euh, kii bu ngir wopp ji bañ a gën a yaatu fii ñu toll nii maire bi nekk ca commune HLM yi euh, daal moom dana jël benn arrêté boo xam ne bi nee na. fii nu toll nii marché bi dañ koy tëj bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon gi itam dogal la boo xam ne bii yenn jaaykat yi euh, am ànd nañ ci ñeneen ñi gise ko neneen Fatoumata Diallo marché HLM dinañ ko tëj bés bu yàlla sàkk ci bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon commerçant yu ñu fekk foofee nag ñoom nag yëg nañ bile dogal loola waral sax Ousmane Diop di jaaykatu yére xale mi ngay rafetlu bile dogal ginnaaw suñu ndigalu sëriñ daal président bi mooy li nga xam ne mooy suñu kilifa te it lu mu bëgg a def moom daanaka su ko defee it dañ ci mën a ànd ak moom rek fu sorewul foofu dara ñu demaat ca beneen bërëb Pape Doudou ñu fekk ko fa moom ab tailleur la butéelu gel antiseptique bi mu ngi ko teg ca kaw bi mi ngay rafetlu moom it bile dogal suñu kilifa yëpp moom

jamono ji nag marché yu bëri dañ leen di tëj ngir bañ dajaloo bu bëri bi li ni mel moo waral nag commerçant yi ñu fekk nag ca marché HLM nag ñoom nee ñu dinañ nangu li yoon digle ndaxte loolu mooy gën ci ñoom ak ci seen wér gi yaram loolu moo gën ci ñoom ak ci seen wér gi yaram maire maire yi wala boog maire bu Parcelles Assainies moom tamit jël na dogaloo ne daal ne day tëj marché yi nga xam ne ñoo nekk ci commune yooyu yëpp ngir itam rek aaru ci li nga xam ne moo di coronavirus bi daanaka bu tàmbalee juróomi waxtu ci ngoon ba toftalu luy tolloo tolloog daanaka euh, fanweeri minute waaye nag am na yeneen marché yoo xam ni moom ay waxtaan fokk mu ca euh, kii di Babacar Sadikh Seck euh, moom nga xam ni moom moo di indi ay leeral di maire bu HLM waxtaan ak Mame a Dassila ñu bu bokkul ci li nga xam ne mooy faj maladie bi bokk na ci lu nga xam ne dina ko atténuer mooy lan bu ñu naan dina màtteeg du màtteeg bul joxe sono te li am ci biir marché HLM dafa nekk un danger marché HLM ni ñu ni nit ñuy feesee foofu de sept huit heures du matin ba vingt heures vingt une du yoon c'est pourquoi pour ce qui est ñaari voies yooyu muy tali bi jóge ci ancienne police bi dem ba ci ñaari voies Mountaga Sali dañuy interdire ku fa jaa ku fa jaay benn du yoon tali la ay oto fa a jaar borom kër yi ñu ngi jooy parce que bu ñu yeewoo fajar ñu génn ak seeni doom c'est pas normal donc ça nous avons pris la décision ñaari voies euh, Mountaga Sali nous avons dit sur la chaussée ci tali bi kenn dootu ci jaay nañ ci jaay kooku arrêté la moo xam def nañ ko ba pare maintenant wax nga ma sànq ci tubaab affaire ne ndax dañuy tëj marché bi xam nga tëj marché décision la mais man li may nekk nekk maire am naa itam ñu nga xam ne maa ngi ñoom ñooy collaborer bu ma ko dee def war naa ci wax ak sous préfet war naa ci wax ak préfet wax ci ak autorités yi parce que buñ ci jàppul man kenn mënuma ko def mais li ci ne mooy tey à partir de tey am nañ commission accompagnée par le commissaire de police def tuuru marché bi sensibiliser ñëpp wax leen danger bi am ci loolu waxtaan ak ñoom am nañ yaakaar ne c'est des responsables parce qu'il y a un comité de gestion du marché ay responsable lañ comme ñun xam nañ danger bi te alal jarul yenn yi je am nañ yaakaar ne bu ñu waxtaan ak ñoom dinañ egg ci solution boobu ñuy ñaan sax xëy nag yàlla may ñu nag balaa sax loolu yëpp di am ñu ne ñu tey wala suba wala gannaaw suba ñi feebaroon ñëpp jug nañu maladie bi dindi nañ ko fi. trouvé nañ li nga xam ne moo ñu koy fanqal loolu mooy suñu suñu suñu gàtt. Eh, fii ñu toll nii marché yi tamit du am marché ay bis yi nga xam ne hebdomadaire dañu ko duppee ci commune bu jëppal Derklé ba daal jëmmi jamono loolu la ñu wax coronavirus bi nag moo tax loolu am euh, bu fekkee marché marché Castor na nag moom kenn du ko tëj nag fii ñu toll nii waaye nag euh, maire bi ak itam commerçant yi nag ñoom daañu am waxtaan yoo xam ni fokk ñu tëral ko ngir xool daal fan la ñuy jaar Cheikh Gueye. maire bu jëppal jokkoo ak Mame Diarra Da Silva guddi bëccëg suba ngoon lépp lu ñu mën ñu ngi koy def pour aar nit ñi pour waa ak nit ñi pour saytu nit ñi ba jàngoro boobu bañ a euh, nekk ci réew mi lu ñuy rafetlu la man sax ci commune Derklé semaine bee passée demoon nañu ci marché Castor ànd ak équipe bu district Gaspard Camara wax nit ñi yan taxawaay la ñu a am mais surtout jox leen aussi euh, solution antiseptique mais yemuñu si loolu dispositif boobu def nañ ko ci mairie bi def nañ ko ci centre social bi def nañ ko ci kër euh, jàng bi donc di soññ nit ñi pour ñu gën a yokk cet gi am nañu ngelaw bu ndaw bu ñu amoon sax ak délégué de quartier ak bàjjenu gox yi ak jigéenu conseil municipal bi waxtaan woon nañ fa jàngoro bi jox leen aussi ay lave-mains ak produit tey am na association jigéen ñi ma jox heure ni ma daal ñu ñëw ci mairie bi jébbal la ñun li nga xam ni taataan nañ ko ci produit pour ñu jó ko ci daara yi wala ñi nga xam ni ittee woon nañ ko loolu yëpp muy wane nii wax dëgg yàlla nit ñi ngi am taxawaay bu rafet ci jàngoro bi mais dañ ko yokk bu ñu dal xel na ab section wala caen ni jàngoro bi dafa ñëw ou bien du ñu dal nañu jël suñu matukaay yëpp fagaru ak moom ba jàngoro bi génn ci réew mi loolu daal laay digal sama bopp di ko di ko digal ku nekk mais comme que gi aussi dafa tere bépp mbumbaay ak benn daje daje bu mag mais war nañu xalaat ci mbirum marché yi loolee tax sax ma leen di yëgal ni marché samedi bi daan am ci commune Dieuppeul Derklé jeex na ba jàngoro bi jóge fi donc suspendre nañu li ci des mooy marché Castor ñi xool ak yi nan la ñu ko mën a def ba dix-huit heures bu jotee six heures ñu bi ba subaat naan tëj ko dama jafe parce que nit ñi foofu la ñuy dem di wuti lu ñuy lekk boo ko tëjee mën na indi jiixi jaaxa mais war nañ ko mën a tëj à de dix ba suba ñu ubbiwaat ko donc ñu ngi xool loolu nan lañ koy jëfee euh, benn waxtu mbokk yi moo dem ba feggoog euh, daanaka euh, fan ñaar fukki minutes ak ñett fii saa fii dañuy daal dem ci xët wi ñu jagleel wàllu aada ak cosaan dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy dooree ak communiqué bi nga xam ne waa AMS ñu ko génnee di ci xam ne ne fu mu nekk nii jot nañu daal di xool daal lu ñu mën a taxaw artistes yi nga xam ne ñu ngi tàmbali di sonn ginnaaw bi nga xamee ne feebar bi la di coronavirus mi ngi wër àdduna niki noonu artistes yooyu lay di xam ne ne ñu ngi wëy di annuler ay festival ak it di dàq ci jëmmi jamono lépp loo xam ne ay yëngu-yëngu la ci wàllu mbatit te ñoom ñoo ci waroon nekk niki noonu ñi xam ne ne feebar bi lee dafay andi ay gàllankoor ci ndax ñu ci bëri fu mu nekk nii xëyatuñu te amatuñu benn yëngu-yëngu looloo tax ñu ngi ñax nguur gi mu taxawal benn gafaka boo xam ne dañ ko fay teg ngir jàppale képp koo xam ne am ngay jafe-jafe wala bokk yaa ngi wala bokk yaa ngi yëg jeexital yu metti yi nga xam ne feebar bi di coronavirus def na ko ci te wàllu yëngu-yëngu jeexital yu métti yooyu nga xam ne coronavirus mi ngi koy am ci wàllu activité artistique bi terewul ñoom dañ dañu ngay wéy di fent ak àndi seen xel ak seen xalaat ak seen xarañte ci lépp lu jëm ci wàllu xeex bi looloo tax ginnaaw bi ministère de la culture daal dajee xam ne ministère de la santé ngir daal ñax artistes ñu ñu dugal seen loxo ci wàllu yeete as ci wàllu yee askan wi lu nu mel tàmbali na jur ndax kat ci wàllu musique moom woykat yi tàmbali nañ di fent ki noonu waa Y'en a marre sax gëñee nañu benn single bu bees boo xam ne ñu ngi ciy wax lépp lu jëm ci wàllu yee askan wi nañ ko déglu ci noonu it bi jot nag génnee moom it benn single boo xam ne mu ngi ciy wax lépp lu jëm ci wàllu yee askan wi ak it ñu mën a def ba moytu boobu lay jàngoro di coronavirus. ah en 2019 yàlla wàccee Chine coronavirus man maa ngi laaj ba xam loolu wóoroon na Iblis feebar bu law ci àdduna gaaw ci wàllaati jaaxal doomu aadama yëpp gaaw ci rayaati. tu seras pas surpris d'entendre des cris des hommes qui pleurent ça fait mal mal mal ça fait mal mal mal. T'as des gens qui mordent. Ça fait mal, mal, mal. Ça fait mal, mal, mal. En oh, prévention, se laver plusieurs fois les mains avec du savon. N'oublie pas l'eau de Javel, mets-la à fond. Fermez hermétiquement les poubelles. Évitez tout ce qui est salutation manuelle. Se moucher avec des mouchoirs à jeter. Dans la poubelle, bien sûr, et bien l'attacher. Solo se masque, bon, non, puis du fagaro. lu ko si moom moom la sax di xam ne ne turam bile donte virus la waaye moom dafay wàllaate jëm ci wàllu xam-xam ak it ci xel mu rafet jaare ko ci musique bi waaye du coronavirus boobu nga xam ne ni ngi dañ koo ragal ki noonu sax muy wëy di ñaax ñi nga xam ne ñooy nekk ci wàllu njaay mi ñu bañ a taral seen loxo jëm ci wàllu jaayum gel wala bokk solution hydroalcoolique yi ngir askan wi mun cee jot mun a fàggandiku. donc virus maanaam virus. voilà donc sénégalais yi nag bu ñu déggee virus rek tout le temps dañuy dégg lu négatif alors que xamuñu virus sax day rey virus donc virus bi dafa nekk virus ba nga xam ne juste day contaminé doomu aadama yi melomaan yi ci musique am bu muy def c'est-à-dire ak euh, xam-xamam donc ndax tey euh, xam-xamam tey bu ko amul woon tey du ko mën a du mën a bind texte tey ba nga xam ne dina mën a wax la nga xam ne dina mën a jëriñ askan bi donc moom virus bi contamination foofu la day def euh, fexe ba melomaan yi bëgg lu muy def sopp lu muy def topp ko ci lu muy def waaw donc loolu loolu moo tax ñu naan virus donc boo sorti kemtaan bu mu génnee si diggante bi ba ñu commencé def euh, communication bi euh, entre temps euh, am jàngoro bu nga xam ne bu ñu woowee coronavirus Covid 19 mu lëmbee loolu torop àdduna bi et après ñu obligé woon jël kéemtaan mettre ko en attente ndegam tamit ñun ay artistes lañu ay porteurs de voix lañu tey duñu duñu ay docteurs duñu ay médecins. mais am na ñu tey euh, suñu role mooy ñu mën a sensibiliser doomu adama yi ci feebar yi ndax jàpp nañu suñu kàddu rek euh, war na yitteel doomu aadama yi suñu kàddu yooyu war na mën a tax ñu xam nan la ñuy def pour mën a fagaru donc moo tax si diggante bi ñu defoon pause kemtaan bi après génnee benn son bu tudd coronavirus pour mën a sensibiliser doomu aadama yi mu nekk suñu contribution comme en tant que artiste voilà donc léegi beneen mbëbët bi lépp rek lu ma ci waxaat mooy euh, maa ngi ñaan suñu gouvernement suñu état tey bu ñu mënee wàññi tey euh, produits antiseptiques yi ak masques yi nga xam ne askan bi mën si mën si jot parce que tey du du ñëpp la xam ne seen seen loxo jot seen digg euh, ñoo xam ne dinañu mën a jënd masque boobu noonu à mille francs wala produit boobu noonu à mille francs donc comme que instant yi ñu ngi si bu ñu ko mënee wàññil doomu aadama yi nga xam ne ñëpp mën fii lañu ndar keppee seen xibaaru mbatiit jërë ngeen jëf ci déglu bi